maam Ndiaye savon ne pexeel nañ ko lu mat juróom-ñaari yoon dalul mhm. jëf nañ ci moom guddi dalul jëf nañ ci moom bëccëg dalul mais jamono ji ñoo ngi koy waajal ñett ñoo xam ne dinaa ko wax ci émission bi ñett ñoo xam ne bu ñu deful attention balaa muy mat ñeent fukki guddi trois personnes trois personnes yoo xam ne ay artistes lañ nit ñu siiw lañ ci kaw chaîne waaw tiit moom réew mi kurut artiste sax tiit nga bëgguma di citer ay tur jàpp zoo fexeel nga fekk ma fa ma ne ndax mbokk nga soppe nga li la dal nii nag xam nga bu baax a baax li ne sa yaram kot lañ ko sànni dañ ko sànni kot am na fam jugee jërë ngeen jëf ginnaaw bi leen nuyoo ziar leen yéen ñu faral si daan Yëmbël Vision TV te ñu doxantu koo xamante ñu bëri xam na li mu nekk senegal bëriwul jot ci moom jafe na lool ñu koy faral di gis ci dëkki naar yi rawat rawatina Dubaay ak yeneen gox yu wute tey ñu doxantu seet si ko gis nañ ne fan yi passé dee yi bëri na euh, Seydina Aliou ñu koy dàkkantale la maarab diplomate mu nekk koo xam te ne macha allah ñi jëflanteek moom ñëpp xam nañ moom mooy kan dina waxtaan ci actualité réew mi dina waxtaan ak moom ci li muy liggéey Seydina Aliou ñu ngi lay ziar. alhamdulilah alladi bi nicmatihi tatimu saalihat wa bi fadlihi tatanazalu alxayrat walbarakat wa bi tawfiqihi tataxaqaqu almaqasid walgaayat alxaail wa in min cheyin illa indana xazain wa ma nunazilhu illa bi qadrin maalum général maa ngi di ziare monde entier rawatina monde islamique bi di ñaanal réew mi yëpp jàmm di ñaanal réew mi yëpp tawfiq di ñaan yàlla Sénégal gi yàlla def jàmm noonu la ñuy jaare nag di nuyu xalifa généraux yi nga xam ne tey bu ñu wax kaaraange dëkk bi ñoom ñoo ko yor yàlla defal leen jàmm defal leen tawfiq méngoo seen mboole mbir ci zahir ak ci batin bañ mën a mottali seen mbooleem mission bi jaahi nabi Mustafa alayhi salaatu wassalaam bismillah alaaji général am na solo Euh, la maanaam diplomate fi ñuy commencé suñu waxtaan ku ne xam na ne yaa ngi génn Sénégal li nga nekk Sénégal bëriwul tey ñu profité am ak yow émission euh, dañoo gis Sénégal actuellement rey yi dafa bëri dem HLM xaw ma HLM loolu xaw ma fan la daal am na benn borom moto boo xam te bëccëg lañ ko doon agressé bu ñu jógee ci loolu gis nañ ne feebar yi bëri na rayante yi bëri na aussi naka nga gisee loolu balaa ñu continuer waxtaan bi alaaji général euh, gis bépp ndaw bu fi nekk bëgg a mucc foog nga ut kaaraange gu dëgër kaaraange nag dafa nekk mbir moo xam ne protection la bépp doomu aadama bi nga xam ne bëgg nga mucc ci banditisme mhm. ñu fekk la rey la wala fekk la sa kër agressé la lépp loo mën a def ngir ut kaaraange gu dëgër nga def ko boo ko deful bal perd la dal gouvernement bi nag am nañ ci part de responsabilité nañu jël gox bu ne ñu yóbbu fa ay agence ñu nekk fa man prison yi sax dafa ndaw war na gox bu ne war nañ faa def ay euh, jumtukaay yoo xam ne képp kuñ fa ku euh, kuñ fa agressé anam buñ ko agressé ñu jëm cee jën. li commencé mooy gis nañ ne euh, Sénégal kaana gi ñàkk naan ko. Mhm. gis na it aussi fële HLM am na ko doon agressé. Mhm. dafa mujjee rëcc waaye nangu doon saakam. Mhm. bëccëg lañ ko doon agressé am na ñu ko fekkee waaye kenn jàppalewu ko. aussi nañ ne it ay artistes yu bëree bëri seen xel dalatul. naka nga gisee loolu. maa ngi alerté nag artistes yi am na ñett ñoo xam ne. dinaa ko wax ci émission bi ñett ñoo xam ne bu ñu deful attention balaa muy mat ñeent fukki guddi bal perdu mën na leen dal te lu métti lool la seen jëmm yi. trois personnes. trois personnes yoo xam ne ay artistes lañ nit ñu siiw lañ ci kaw chaîne buñ jugul seen bopp balaa yàgg danañ gis musiba boo xam ne dana wàcc seen kaw. Aziz Dabala li koy dal dal na ko nga tourné waat waxaat na yeneen trois artistes yoo xamante ni ñu ngeen di hmm. waajal. Hmm. loolu it bu askan bu ñu ko déggee baa duñ tiit aussi. waaw tiit moom réew mi kurut artiste sax tiit nga. waaye nit ñi nañ daw fagaru gëm faju ndax arab yi dañuy wax naan al wiqayatu xayrun min al ilaaj wa xayrul a aajil ñetti artistes yooyu nañ jub taxaw seen bopp ma na xam kan ak kan la waaw man nag euh, dama nekk doomi aadama boo xam ne bëgguma di citer ay tur mais ku ci nekk lay daw sa yaram ak lala la dal xam nga ko mais boo cité wul tur aussi askan bi dañuy xaw a tiit njàpp zoo mhm. fexeel nga fekk ma fa ma ne njàpp zoo du ma la recevoir fii ci ndakaaru ndax mbokk nga soppe nga li la dal nii nag xam nga bu baax a baax li ne sa yaram. mais njàpp soo lan moo ko dal. aussi am na fu mu jugee kot lañ ko sànni. nga ne njàpp soo dañ ko sànni. dañ ko sànni kot. am na fa mu jugee am fa mu jëm. te actuellement bayra bi mu àndaloon attanu ko. ndax bayra dëgg ku la ko jox. mais njàpp soo aussi bu jógee ci Sidi Diop dem ci Wally Seck commencé euh, carrière am carrière bu nice. carrière bu nice dana doon am mais jamono jii pexe yi bari na ci moom dañ ko encercler. su ma déggee kon attention ah li dal Aziz lu ko gën a doy waar mën na koo dal na ma fekk ji daal na ma oo fekke ma fi ma ne am na solo damay waxtaan ak yow barki dem nga am benn tur koo xamante ne dafay jaay diw nga mhm. am lu ma wax si moom bëgguma woon tudd turam sax waaye naa tudd turam Mame Ndiaye Savon mhm. ñu waxtaan ci lu yaatu mais lan mu tax nga wax Mame Ndiaye Savon ak la mooy problème bi Mame Ndiaye Mame Ndiaye Savon nit ku baax la xamuma ko dama koy suivre à travers internet mais damay wax doomu aadama bi nga xam ne dafa nekk ci réew mi bu dee ñetti personne wala cinq personne jël nga leen ay employés ñuy tedd sa wërsëg kookee sénégalais dañ ko war a bàyyi xel waaye pexeel nañ ko lu mat juróom-ñaari yoon dalul jëf nañ ci moom guddi dalul jëf nañ ci moom bëccëg dalul mais jamono jii ñoo ngi koy waajal loo xam ne bu deful attention bu ko dalee dina ñaaw lool man nag mënumaa jox lu ma amul mënumaa yóbbu fu ma mënta yóbbu sama bopp ñu jàppale ko ngir mu am kaaraange total te dana am benn bés boo xam ne bu mu ko di ubbi place am yi bu ma ooy dina ko xam bu soobee yàlla jour boo xam bu mu ko tijjee place boo xam ne bu mu ko tuddee tijji place am yi am na solo la maarab naa ñëwaat ak yow ci actualité parce que it bëgg naa ñu xuus baax baax ci kaaraange ak lan mooy kaaraange dëgg mais balaa may continuer mhm. damay gis parfois ngay xaw di liggéey wala ngay liggéey ak ñu bëree bëri rawatina ay kilifa mhm. li may jooy rek mooy li nga ko dul li nga dul nekk Sénégal lu bëri mooy mbirum li si xaar ñu bëri bëri xam nañ dañ ciy yëngatu ak Euh, la général man képp koo xam ne yaa ngi nooyi ci addina dama lay seetal te dama lay gis ci seet sama seet nag tënkuwul ci ay folklore comme gone yi lu ñu koy defee nii hal yastawi alladina yaalamuuna walladina laa yaalamuun ki jàng ak jàngul ba pencam yàlla duñ yem may man damay seet ci istixaara nag borom bi subhaanahu wa taala am nay aaya alquran yu koy junj waaye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ñu doon jàngal ay istixaar comme na ñu doon jàngalee ayatul quraan yi jëlee nañ ci Muhiddin Samba Diallo mu naan kam min fi'atin xalilatin galabat fi'atan kasiratan bi iznillah wallahu maa sabirin képp ku ci am ndigal di ko doxee noonu mbir doomu aadama dara du la ci ump danañuy seet ci ndox ndax lépp loo xam ne borom bi subhanahu wa taala bind na mu jugee ci ndox rek def na ko muy dund wa jaalna min al maai kullu shay hayyin afala yuminuun wallah xalaqa kulla dabbatin min ma kon ndox manees na joo seetal doomi aadama bu addunaam mel ko ni scanner lépp ma koy gis wàllu suuf minha xalaqnaakum wa fiha nuidukum wa minha nuxrijukum taaratan uxra yàlla borom bi subhaanahu wa taala booy wàcc gane si àdduna ci suuf nga ñëw ëllëg booy dee suuf lañ lay dell waaye booy dekki ëllëg ki suuf ngay jugee kon doomi aadama nit ku ne mën nañ koo xoolal ci wàllu suuf rawatina li bi nga xam ne dafa wàccoon ci yonent yàlla Idris muy xam-xam bu wér xam-xam bu set danañ ci seetal doomu aadama ba léppi àddunaam ki waaye ku ñu xam xam ñu ci empreinte digitale philosophie dañuy wax ni c'est une preuve scientifique incontournable dans la résolution des affaires doomi aadama bi nga xam ne yónnee nga ba sa turu yaay sa turu papa ñaata at nga am nga yónnee ma empreinte digitale bi si whatsapp bi si kattanu yàlla ak mbaaxam li des ci at mi dootoo seetlooti li wees sa dund mooy la passé fi nga toll le présent fi nga jëm mooy le futur passé présent futur lépp luy nit di wax ci nit ci seet ci loolu képp la koy tënd kon nag empreinte digitale bi ku ma ko yónnee dinaa la wax sa dund la gën a jaaxal sëriñ ci nag mooy man képp ngay dégg ma naan istixbaar istixbaar nañ ko xoolee ci turu yàlla ndax yàlla mooy xabirun fasal bihi xabiran képp koo xam ne seetal nañ la ci turu yàlla buy alxabir maanaam day mel ni écran géant lañ la tegal sa kanam ngay xool sa dund xam sa mbir loolee nag moo lay tënk yóbbu la ci wàllu sarax bu ñu yeggee loolu dinañ la wax lan mooy ngëneelu sarax am na solo mbirum sarax dinaa si ñëw mais balaa ma si ñëw dafa am loo xam te ni askan bi moom la gën a soxla réew mi metti na mhm. nga gis ñu bëree bëri dañu bëgg a tukki mhm. mais mel ni tukki jooni jooni ñu bëri xamee nan la ko mhm. donte sax li ngay liggéey bi bëriwul mais tukki jooni jooni yoobu nan ngay def ba lijjanti visa yi ni muy gaawee ban yoon ngay jaar ku mënta tukki mënoo ñaanal doomi aadama ci tukki mënoon naa la woon gundoy image nga def ko devant les écrans monde entier gis ko puukarewuñ ci nag dañ ciy wax ba amma bi ni'mati rabbika fa xaddis euh, ku gis passeport bii xam ne du passeport boo xam ne aadi la aadi boo ko déggee mooy passeport boo xam ne n'importe quel passeport la euh, doomi aadama yi nañuy gëstu ban bés la ñuy jëli seen passeport c'est très important doomi adama di ki nekk senegal fii am na yoo xam ne buñ ko fa jaaralee bu soobee yàlla passeport am amul benn ambassade bu mu koy teg ci àddina te duñ ko may visa fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiran danañ ciy jaarale doomu aadama bi nga xam ne day génnee këram di uti bu demee dañ koy may waaye doomi aadama bi nga xam ne dangaa nekk bitim réew bëgg am ay këyit ñi nekk bitim réew ala général ci lii lañ leen di seetalee ci seetu seetu bii ñu ngi ciy seetee aaya buñ naan allahu nuuru samawati wal ardi mhm. boroom xam-xam yi dëgg nee nañ aaya boobu képp koo xam ne bind ko ko ci limu soixante-dix nga nga nga ko say bët say bët du yàqu dina leer te di doo am benn jafe-jafe ci àddina kon képp koo xam ne nekk nga bitim réew joxe sa xaalis fu ne jëflanteeg doomi aadama bu ne fay ku ne mosoo am résultat ndem soog na yàlla seedeel naa la ko ci alxuraanul kariimi boo jëflanteeg ñun ci wàllu kayit 18 jours laa koy garanti man maa ko wax. fukki fan ak juróom-ñett borom bi subhaanahu wa taala may la say kayit képp koo xam ne jeune nga bëgg a tukki. maa ngi ñan ci dara darajay alquran ci weeru gàmm bi ñu ne borom bi subhaanahu wa taala yombala la tukki ba nga dem ut dimbale say waajur bi jaahi rasulillah wasalaamaaleykum mais passeport duñ ko bàyyi bëgg naa ñu laaj benn question boo hmm. ne gis nañ ñu bëree bëri dañ kaa xam ci yow hmm. mooy benn téere boo xam te yaa ko def ci passeport yi hmm. téere boobu ban façon téere la alaaji général téere yi ma yor nii ay xeetu téere la yoo xam ne képp koo xam ne am nga ci benn awloo ko mais dañ koy ëw dafa am anam buñ koy ëwee mais première page passeport bi nga koy dugal à la générale mhm. képp koo xam ne mbindeefu yàlla nga ngay dox ci kaw suuf di nooyi jugee tukkee ci aadama ak awa téere yi boo ci amee benn def ko sa première page bi nga xam ne sa photo fa lay ne boo ko ci defee mu am fa ñeent fukki guddi benn ambassade ci àddina sañu laa sañu foo mën a dem ci àddina dañ lay tamponel muy Amérique muy États-Unis muy Canada hatta Canada téere yii nii moom yàlla defal na ma ci tawfeex képp koo xam ne mas nañ cee jëflante rek yàlla dimbale la ba jamono ji yaa ngi dimbale say waajur kon képp koo xam ne yitteewu nga ko boo woowee Seydina Aliou dana si dimbalante ak yow bi jaaye rasulillah dinaa si ñëwaat ci liggéey bi parce que hmm. it mënul ñàkk ñu waxtaan ci hmm. mais dafa am koo xam te ni kilifa la hmm. ci réew mi ñu koy wax Cheikh Omar Diagne mu wax benn baat boo xamante ne déranger na ñu bëree bëri dëgg la dëgg la nag nga gisee wax jooju man nag wax ji damay wax waxtu wu nekk kilifa yi dañoo am martaba kilifa yi ay walu yàlla la ñu woon ala inna awliya allah la xawfun alayhim wala hum yaxzanun borom bi subhaanahu wa taala dëxën na ci ñoom baatin boo xam ne même newuñ ci àddina waaye lépp lu nit wax ci ñoom wala jëmale ko ci diine ñoom danañ ko fajal seen bopp kookee ñoo ngi koy alerté ndax nit ku juum amul na defaraat toogaayam nit nag danay am am dara am alal waaye am alal nit danay tox danay torox ba pare am jàmm nit dana dund di nekk ci jàmm nekk ci teraanga fekk au fond dëgg-dëgg hmm. yaa ngi dund fitna kon hmm. kooku ñoo ngi koy alerté bu fekkee njuumte ndax kilifa yi mën nañoo fajal seen bopp hmm. wassalaam am na solo ah dañuy ba tey. Mhm. yaa ngi doon wax sànq mbirum papier. Mhm. mais dafa am ñoo xam bu ñu nekkee États-Unis wala réew bu ñu mën nekk. Mhm. problème bi ñu am mooy nationalité. waaw wàllu nationalité dama ci wax benn wax ñeent fukki guddi lañ koy liggéey. bari na alxuraan lañ koy liggéey waaye dane am na yenn ci ay secret yi. Euh, fañ ko jëlee ak nañ ko jëlee may ñu koy wax devant les écrans mais defal nañ nit mu am regroupement familial miraaran wa tikraaran mooy ay yooni yoon waaye dimbale nañ nit koo xam ne deful ci dëkk ñaari at am nationalité. te kii weddi loolu wala ngay am sikki sàkk ci anam boobu fexeel nga jokkoog Seydina Aliou lépp loo xam ne mbebet la ci tur mooy euh, ci wàllu tubaab ak yu nu mel boo yegsee fii sa aajo dana ci faj wasalaam. am na solo. jigéen ñi duñ leen fàtte. Mm-hmm. da nekk ak góor mu jig saay woor la dem. wala góor ni ko jigéen ci saay war la mhm. wala sax kenn jógee fee yàq seen diggante mhm. noob nekk loo xam te nii mhm. gis nañ ni askan wi ñu bëree bëri dañ koy fowe rawatina maara yu bëree bëri jël xaalis jaamu te duñ ko man ñu bëri xam na la si noob yan façon noob ngay noob ba képp koo xam te ne jëflante ngeen daf ci gis résultat euh, li may wax nekk rek képp koo xam ne dem nga ci sëriñ mu wax la wàllu noob nga jox ko sa alal te amoo résultat daa fekk yegg fii Euh, doomi aadama lépp looy wax da nga ci jiital bàmmel lépp looy wax nañ ci jiital yàlla waaye lépp looy def nañ ci jiital ragal yàlla képp koo xam ne am nga aajo noog yow góor gi nga xam ne dangaa investir ci jigéen alal ju bari mu xëy ba set ànd ak keneen bala bu yegsee fii seedeel naa la ko ci leeru alquran dina la topp àddina ak alaxira waaye yow jigéen bi financé góor jëflanteeg moom ci zahir jëflanteeg moom ci baatin nekk ak moom guddeeg bëccëg ëllëg mu gis keneen topp la boo ñëwee foofu danañ ci jaar ci xam-xam bu ñuul danañ ci jaar ci xam-xam bu weex ndax wàllu nopp dafa nekk mbir moo xam ne nit ku ne ak li koy jàpp waaye li ci njëkk mooy dañ leen di seetal ba noppi ndax góor dafa ami raw xaan jigéen dafa ami raw xaan pour nga composer leen boole leen ñun dañ ciy dem ci ñaari fànn zulmaani yu ak nuuraan yu am nañ xeetu fas yoo xam ne gannaaw buñ ko jàngee liñ ciy jàng ay jet yoo xam ne jëlee nañ ko ci wàllu pël jëlee nañ ko ci wàllu séeréen buñ ko jetee ba takk ko ba def ko lañ koy def loolee diggante boobu fekk nit ki jëluñ ko lëmas ko juróom-ñaari mètre percal gas di ko dugal doo leen tàqali ko ba ilaa yawmi am nañ ay xeetu kànnaar yoo xam ne ñi nga xam ne dañoo nekk bitim réew bëgg a ñi nga xam ne ay nit ku weex lañ wala mu nekk chinois wala mu nekkee ñoo ñooñee dafa am lu leen di jàpp te loolee ay kannaar la yoo xam dañ koy liggéey di ko liggéey ci ay alquran waaye yenn yi tamit danañ koy liggéey ci ay tour de wala yu nu mel waaye bëgguñ ko wax devant les écrans képp koo xam ne am nga aajo nopp mu jaaxal la wala nga nekk ak jigéen ci kër jafe-jafe di am wala mënoo dëgg ak sa soxna wala kii nga bëgg koo takk ay waajuram yépp taxaw ne duñ la ko may billahi bu yegsee fii ñu may la ko ci zahir ñu may la ko baat da sëy te da ngeen ami doom wasalaamualeykum wa rahmatullah am na solo euh, am boo xamante ni dama koy faral di gis ñu bëree bëri di ko laajte mm-hmm. mais que dangay gis <laughs> naar yi ni ñuy jëflante ak yow mm-hmm. alal bi mm-hmm. ñu bëri it nee xërëm la aussi Euh, man nag li may wax waxtu wu nekk képp ku ma oo di ma wax wàllu sacrifice. Mhm. wala tabdil wala yokku alal man yokku ma alal. mais xaalis bu gaaw bi aussi. maa faradna fi kitaabi min shay. Mhm. yàlla borom bi subhaanahu wa taala bàyyiwul lenn ci alquran waaye dama laa wax benn wax léegi général. Uh-huh. wa daa'iyan ila allahi bi iznihi loolu yaa ko yeggali wa siraadan muniiran. Mhm. yàlla sax ba mu yónnee yonent yi daf maanaam dañ cee am ndigal alal nag. danañ ci dem ci waaqia ci ay xeetu jaar waay yoo xam ne képp kuñ fi jaaral ba ba ngay sangoo suuf doo ñàkk sutura waaye suratul yaasin ndax yonentu bi daf cee wax ci ay ngëneel yoo xam ne mënuñ koy wax yaasin lima xuri a li kulli shay'in fi l wujud lahul xalb wa xalbul quran yaasin am nañ ci ay xeetu yoon yoo xam ne dañ fiy jaar ak doomi aadama képp koo xam ne sangoo nga lool ci onze jours ihda ashra yowm fukki fan ak benn li des sa dund gi noppee ngaa ñàkk alal noppee ngaa ñàkk sutura te lépp luy doomu aadama di taxawal muy kër oto yóbbu sa yaay màkk ak yu nu mel borom bi subhaanahu wa taala dina la ko xiwalal cangat googu nag moo ngi tudd raw say maas képp koo xam ne yéen a ngi ànd ah bu la rawut doo ko raw ba àdduna tukki du la féetee kanam di nga am jàmm te alal dina la yomb lool waaye ci zulmaan yu yokku alal ak yu nu mel yooyee ñun doxuñ ci waxuñ ci képp koo xam ne cangat góog ñor na la boo woowee Seydina Aliou dañ la ci dimbale ci zahir dañ la ci dimbale ci baatin wasalaamu aleykum suñ dernière question pour ñu mën a continuer waxtaan bi mm-hmm. mooy mm-hmm. bayre rawat ni ñuy jaay mm-hmm. lan nga ciy liggéey dama laa waxoon la fois passée ne la commerçant yu bëri leen um mooy turu ñi tuddee seen place bu sa yaay dee rek nga jël turam def ko sa place bu sa mag dee nga tuddee ko place dafa am xeetu tur yoo xam ne képp ku ko tuddee sa place place bi du dem tur bi ngay tuddee sa place tur bu ñu war a xisaab la xam tabia tur bi xam rawxaanu tur bi dafa am tur bi yoo xam ne dañuy xëcc am tur yoo xam ne dañuy dàq loolee ñu bari daf leen kii waaye dafa am xeetu bayra yoo xam ne am na ci boo xam ne dañ koy liggéey ci boppu golo sox ko ëwal la ko nga takk ko sa buntu place mais am na yoo xam ne danañ koy jaar ci zuyina yi nekk ci alquran mooy zuyina linnaasi xubbu shahawaatu min annisaai walbanina walxanaatiri muxantara ila axiri al aya ak zuyina lilladina kafaru xayaati dunia wa yasxaruuna min alladina amanu ila axiril aaya sungufu xaalis sungufu or maawul wird ak yami àndal yoo xam ne ma ne su koo tudd am na parfum bu cher boo xam ne li muy jar ci alal dafa bari as laa ciy sotti rek waaye loolee képp koo xam ne sangatoo nga ko sa jëmm ji maanaam boo fekkoon téeméeri doomu aadama toog boo ñëwee yow la ñuy xool koo bokkal di jaay dana dem bale sëriñcu ndax nit ñi dañuy dugg ba yow da ngay am jafe-jafe te ci sa place am na ñoo xam ne 19 la ñu wàcc waaye cangat gi képp ku ko cangatoo moo xam kilifa nga dangay ut mbooloo mbooloo mi dañ la topp waaye bu dee commerçant nga danga dem ba heure wàcc doo mën a wàcc ndax nit ñi dañuy bàbbeeku fu ne day dem ba foog ne sa ay raw rawxaan ñoo dugg sa place ku ko soxla booy wootee fii ci cabine bi dañ la ci dimbale asalaamaaleykum lan ngay tàggatoo sa gis-gis ci réew mi sama gis-gis ci réew mi ni ma baaxee di ko wax mooy nit ñi nañ gën a fonk daara yi respecté daara yi jox tër sëriñ daara yi te maa ngi alerté ñi nga xam ne dañoo am yore alalu réew mi bëgg a am na dossier yu baree baree baree bari balaa yàgg danañ ko génnee te ku ci bëgg mucc la nga am as woo ma ma yóbbu la ci ay daara nga jëflante ak ñoom teraanga xale yi jàngal la ay yaasin defal la yu nu mel danga mucc réew mi buñ fonkee daara réew mi dox réew mi buñ fo daara billahi alladi la ilaha illa huwa maa ngi lay seddeel ci alquran karim ci ay giraawaan la ñuy dund ay rayante ak yu nu mel di topp di wax nag ñi nga xam ne ay ndongo daara nekk ay xale bu leen am complexe bu leen am complexe civilisation bi ñu wax alxuraan moo ko njëkk a indi damaa toog ak benn xarit bu ñuy wax bàyyi xaraka xaraka ñëw sama kër ñuy waxtaan ba ci kanam sama doom ñëw dugg ci néeg bi rek saa mu fëgg mu ne ma non bu doon dakaar nii la ñuy doxee ma ne ko lan mooy Dakar ak kan mooy dakaar ñun complexé wuñ ay nitu daara lañ te ci loolu la ñuy dund amal bat plus 34 faale wuñ la boo toogee ci bureau ñu toog ci bureau DG mooy lan. ma ne ko nag gis nga xale bii lu def civilisation jàngale na alxuraan lu mu wax laa tadxulu buyutan gayra buyutikum xatta tatanisu wa tusallimu ala ahliha loolu li muy firnde mooy lañ ko doon jàngale sax moom la français innan naan avant avant avant avant avant xaw ma lan d'entrer il faut frapper il faut il faut taper la porte kon alxuraan moo njëkk a jàngale civilisation monde daara laay wax ak xale yi dox ci réew nañ gëm seen bopp xam ne réew mi seen loxo la ñuy mujj nañ fonk daara yi fonk sëñ daara yi di jëflante nit ñi ci zahir ak ci baatin képp ku neenal alquran wala nga wan ko ginnaaw da nga am dund gu xat da nga sond da nga am jafe-jafe te sa dund bu baax wa man arada an zikri fa inna lahu maishatan danka ku du mooy alquran dund gu xat ngay am maa ngi ziar ñëpp di nuyu ñëpp di ndokkel ñi ñi ci weer wii nga xam ne mooy weeru gàmm nga xam ne ñun yaakaaruñ ku dut sallallahu alayhi wa sallam mooy suñu ruux di suñu dund di suñu lépp wa axiru dahwaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu am na solo ginnaaw bi ñu paree ci uh, waxtaan bu am solo bi xamante ni uh, la maraab diplomate ñu bëree bëri xam na ne it uh, li ñu koy gis fii ci réew mi bëriwul ñu woo ko ba son am ak moom émission émission bu ama am solo yaakaar naa ku ko déglu mën nga siy jëriñu numéro moo nekk ci suuf képp koo xamante nii mën nga ko bëgg nga ko jot rek mën nga ko ci jot parce que moom li muy am temps bëriwul nga profité mën ko jot balaa muy génnaat réew mi parce que it njëriñu Sénégal la kon ñu ngeen di di jaajëfal baax a baax beneen yoon ci beneen numéro incha allah ak kenn ku ñu dalal muy borom xam-xam jërë ngeen jëf